actualité bi gars ñu fa seen waxtaanee lii di conférence de presse bu Aliou Cissé bu waroon am ëllëg li ci ruusee wax également ci ki xam donc moy ki di Ismaël Jacobs nga xam nak dañ ko daldi di daan fa nga xam moy donc ci clubum mom mi daldi am lu mu def loolu nañ ci ñew wax ci Melata bobu gaay gars li ma doon wax rek en hein, soutien total au peuple sénégalais suñu frères yi suñu mbokk yeeg ñëpp li wax sax nek Sénégal benn bop la kenn mënu ko xar ñaar te li wax rek du dëkkum dictature dëkkum démocratie la te Sénégal image boobu lañ mos am nañ ko wëy diko ko mooy suñu dëgg te nañu nañu nañu fexe ba dëgg mujj du pour ñun mais suñu ëllëg ak suñu njaboot moo tax conférence de presse donc bu Aliou Cissé waroon am ëllëg gars yi mujjee nañ ko annulé parce que tamit euh, li nga xam ne mooy situation bi am ci dëkk bi moo tax gars yi ñu daal di koy annulé et je pense que aussi également ñoom euh, gaynde yi am nañ ci responsabilité responsabilité mooy lan parce que ñoom ay porte voix lañ parce que ne saa su nekk buñ jógee ci terrain bi sénégalais yi ñooy nekk seen ginnaaw sénégalais yi tey ñoom ñoo leen di supporter am na sénégalais yoo xam tey wàcc nañu liggéey ci lan ngir défendre seen dëkk ngir lan défendre li nga xam mooy démocratie bi ñu am donc ñooñu tey dañ leen di ñaanal fi ñu jëm yàlla leen gënal fi fi ñu jógee di wax ne aussi Sénégal mooy nekk dëkk boo xam ne ñun sénégalais ñoo ko moom du benn nit bu ko moom ku def ne jàpp ne sa moomeel la yaa ngi nax sa bopp moo tax rek li ñuy wax rek na mais yàlla na yàlla def jàmm ki nga xam ne également ñu daal daan donc fi ne dañ ko écarté ci groupe bi match bi mujj bu Monaco du ko joué ki nga xam ne nag mooy entraîneur am génn wax ci nee problème de comportement la et tout nañ ci am yeneen yu gën a leer daal leen koy wax ki nga xam ne également nag moom mooy donc raqu Euh, Rich James ah, mom nak dafa xaatimaat benen contrat ak ñi nga xam donc wa Blues de Chelsea donc mom comme son frère day woy di nekk joueuse euh, des Blues de Chelsea ki nga également Amandine Amandine Henry Amandine Henry internationale française mom nak yàgg na ci Lyon presque 10 ans ak lu mom dafa di jógee fa nga xam nak moy donc Olympique Lyonnais loolu la léegi daal di donc mom jóge na fofu non ci Lyon ki nga xam nak moy donc ki di Bukayo Saka mom dafa dem nak xama rek ci ay origine du côté donc du Nigeria, ci Lagos. la Bukayo Saka dem pour ses vacances donc gis ngeen ko le joueur des Gunners d'Arsenal donc la pépite anglaise donc de euh, des Three Lions ki nga xamné également nak moy Kim Min Jae nga xamné nak Manchester United euh, moo koy top ak également Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain ñom nak ñu ci mujjé génn bayé nañ ko parce que nee nañ Kim Min Jae limi laaj dafa xawa euh, cher trop wala liko ko di laaj dafa xawa cher trop motax fi donc Manchester United was this United bi nga xamné également gars nañ ah, donc am nañ accord de principe ak ki nga xam moy Mason Mount Mason Mount le joueur formé du côté des Blues de Chelsea bi nga xam nak amul quoi ak wa Chelsea war fa jóge war dem ci Manchester United loolu daal yenn médias euh, fësal ba tey mais nag en attendant ñu confirmer ko kii nag di euh, donc Karim Benzema Benzema selon les dernières informations yi nga xam ne Marca moko ko joxe nee donc Karim Benzema day dess day desandi euh, fa nga xam ne donc ci euh, Real Madrid au moins ben saison supplémentaire ba 2024 ba saison bi jeex mu daal fay jóge bu fay jóge lo daal la Marca wax bu dee ne ñi tamit AS nee mom day dem Marca mom nee day tok Asensio veut le Paris Saint-Germain fi ne actuellement Marco Asensio nak ak ki nga xamne moy donc agent wam agent de na José Mendes ñom dal prime de signature bu 15 millions la ñu d' accord boo xam ne José Mendes ak ki di joueur ñoko wara ñoko wara seddo bu fekkee day signer du côté du Paris Saint-Germain ki nak di Cristiano Ronaldo moom na gars yi xamal ne. moom day toog ci Arabie Saoudite jouewaat fa déwén loolu la wax mu nekk na benn ligue boo xam ne ligue bu bu neex la quoi loolu la kii di Cristiano Ronaldo wax donc déwén dafay daal di kii nag di waxtaan nañ presque ñaari waxtu ñu toftal ay simili euh, ci xam ne mooy problème bi ñu am ci waa Barça tout am nañ waxtaan daal ci ginnaaw waxtaan boobu la ñuy xam ndax kii di Messi ñëwal du ñëw ki nga xam ne mooy Igor Tudor moom na gars neen bu fekkee ne il dort du côté de Marseille ba tax mu jugee fa fi ne euh, club yu nek ci Italie notamment la ñii di Juventus de Turin ñu yàggoon ko fa tuddu moom aussi ancien joueur de la Juve nee nañ daal fa lay waaj dem ki nga xam ne nag waxoon naa leen ko Chaloba euh, yi di waa Inter de Milan daal 25 millions lañ si bëgg la boog la si Chelsea di laaj pour daay ko jaay ñi nga xam ne donc Inter de Milan le défenseur euh, Chaloba. gis ngeen ko nii ah donc bi nga xam ne c'est un joueur boo xam ne aussi il a du talent mais dafa jeune mais il va grandir avec l'expérience kii nag Lucas Hernandez moom il veut rejoindre uniquement le Paris Saint-Germain loolu la gars yi wax parce que nee nañ daal moom même bu fekkee ne Bayern bëgg nañ ko téye moom daal Paris Saint-Germain la bëgg a des gars yi li moo nekkoon information ñu leen bëggoon jox wooy leen di like wooy leen di abonné yàlla na yàlla def jàmm ci Sénégal yàlla na dëgg mujj ci Sénégal yàlla na yàlla aar nitu dëgg ci Sénégal képp koo xam ne rek dëgg taxu laa jug wala nga xam ne njub la moo la tax a jug yàlla na yàlla àtte ak Sénégalais yi Sénégalais yi aussi foo leen nekk rek yàlla nañu yàlla boole xool ñu def benn xam ne ñoo bokk ndey ak bàyyi jaa ngeen jëf